wajaal kalaami rachidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshidan mbokk yi maa ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di sant bu baax ci liñ jota a fekk ci jataay yi di jataay yu barkeel yoo xam ne dañ ci jànge sunu diine di ci yokk itam ci sunu pas-pas te muy lu ko lu lu mënta ñàkk ci doomu aadama. c'est une chose indispensable pour l'être humain. rawatina ab jullit. le plus pour la musulman. rawatina ki nga xam ne day day dox jëm ci yàlla. plus encore celui qui va vers Allah. kii dox jëm ci yàlla. celui qui marche vers Allah. capitalam bi gën a rëy. son plus grand capital. mooy xolam. c'est son cœur. xol bi. le cœur. bu jagee. si le si le bon. lépp jag na tout est bon. لول رسول الله صلى الله عليه وسلم واخون ما تخنا خول بي ليپ لوكو جاغال رك كون دونك تو سكي فا فير دون سونس دو فير دون لو كور بيان لولا مو درب كو سولو تي لي غي ديف يا با بلو امبورطون كو سا خول بي لو كور سيرين شيخ احمد بامبر رضي الله عنه شيخ احمد بامبر دا وخني موي بوروب تيري ادي كو سي لو روا دو تو لي زوغا دو تو لو كور ba tax na cër yëpp tam luñ tànq ci moom lañ koy sotti. tous les organes tous les membres tout ce qu'ils prennent il leur koy bi bu xoolee bu xoolee dara ca xol ba lay accueillir. quand les yeux regardent quelque chose ça va directement bu dégg bu itam ca xol ba lay. accueillir quand les oreilles entendent tànk bi bu doxee tam day def jeexee ci xol bi. tout ce que le pied marche aussi le kon xol bi moom mooy li jàppale cër yëpp. donc le cœur c'est ce qui réunit Bon. te te doomu aadama jëf jum jëf rek am na leer mbaa mu ak lu amul lëndëm. et toute acte que l'être humain pose qu'elle soit dans la lumière ou dans les ténèbres. leer googu ci xol bi lay feeñ. et toute cette lumière là revient sur le cœur. waaye lëndëm gi itam ci xol bi lay feeñ. ces ténèbres aussi reviennent sur le cœur. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne. il a dit. nit ki bu jëfee loo xam ne du lu yàlla gërëm. si la personne pose un acte que Allah n'agrée pas. dañuy tombe tombe bu ñuul ci xolam. on met un point noir sur son cœur. mooy dañuy def day def jeex lëndëm moy dugg ci xolam. ça va faire rentrer les ténèbres dans son cœur. lëndëm goo gën lu say jëf yu ñaaw di gëna bari. et c'est une ténèbre là plus qui fait de mauvaises choses. Mm, xol bi di gën di lëndëm. plus ce cœur là devient plus noir. di lëndëm di lëndëm di lëndëm. de noircir de noircir de noircir. bu mujj nag lëndëm kër yi. au point où il devient presque mort. moom la suñu borom di tuddee arraan. sesekala speak searah ya. kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun xol bi nag boo xasee àgg foofu moom Mana la ko mana, ah, à ce stade maanaam day mel ne lu ñu lu ñu tëj c'est comme si on devait casque loo xam ne mana, yàlla dootu ci mën a mana la plus clair dedans mana, da nekk ci jataay yu ñuy waxee lu baax. c'est des gens qui ne pourront même plus assister dans des assemblées où on peut dire de bonnes choses. duñ mën a déglu sax lu baax. ne peuvent plus l'écouter. duñ mën a déglu alquran. ne peuvent plus écouter le Coran. duñ mën a déglu wax ji wax yu baax yi. ne peuvent plus écouter les bonnes choses nitu yàlla wala nit ku baax da leen di xatal. un bon un homme de Dieu ou quelqu'un de saint ne peut plus même être avec lui. bala ñoo tàlli dañuy nekk ci bërëb bërëb yi lëndëm yi ak bërëb yi nga xam ne nit ñi nga xam ñu jege seetaan. ce qui leur font la joie et le plaisir c'est d'être dans les zones où il y a Seytaan les zones de ténèbres moo tax na xol bi moom lépp lu koy jagal tout ce qui va rendre le cœur pur loolu moom dara ëpp ko solo sëñ bi. pas mieux et meilleure chose que ça. ndax dund gi. du doon du luy répété wu benn ngeen dund la seule vie c'est pas une vie qui va se répéter. waaw te bu xasee jeex jeex na. et si c'est fini c'est fini. te li nga fiy def du yàgg. et ce que tu vas faire comme temps ça va pas durer. waaw sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba dara wax ne àdduna dafa gàtt. le Cheikh il disait que le bas monde est tellement court. maanaam fi mu tàmbalee ba fi mu jeexee dafa gàtt lool. son début jusqu'à la fin c'est tellement court te li muy gàtt gàtt dundu doomu gën a gàtt. malgré cette courtesse <laughs> la vie de notre humain encore beaucoup plus courte. dundu doomu aadama it li muy gàtt gàtt fi muy mën fi muy tëlee ko gën a gàtt. et la la l'entre l'être humain là où c'est malgré sa vie est courte là où ses capacités s'arrêtent est encore beaucoup plus courte. fi ngay mën fi ngay tëlee kay mooy fi la suñu borom toggee jëf ba keroog fi ngay génne àdduna. là où tu deviens majeur jusqu'à ce que tu quittes le monde c'est une distance plus courte. boo xoolee li nga ciy nelaw. Mhm. si tu regardes le temps que tu dors. daanaka dana jël maanaam boo xay ñetti xaaj solution bi un bi. ça va prendre au moins un ndax da nga naraw huit heures de temps daanaka. tu vas dormir au moins boo dee lekk li ngay lekk. boo ko boolee si daanaka danga jël ñaari waxtu. ça va prendre li ngay jox sa liggéey. ce que tu vas faire dana jël ñaari waxtu. minimum bi li nga ci wuyu rek dana jël ñaari waxtu. le téléphone même li ngay dem ci marché ba. ça va compter ce loolu lépp boo ko jëlee daanaka li ngay jox yàlla ci dund gi. lu néew lay doon. petite être pas. daanaka boo ko xoolee ñaari waxtu doo ko doo ko. presque tu peux dire sur les 24 heures tu n'as pas donné à Allah des heures. te yàlla li mu tax mu sàkku nu mooy nu jaamu ko. ce qui est la raison de notre création c'est l'adoration. maanaam yi ñuy defar ci àdduna yëpp. et tout ce qu'on fait sur ce bas monde. jumtukaay la ngir mën a. jaamu c'est des outils pour pouvoir adorer Allah. kon loolu ci la ñu xamee nag solo. c'est là où on doit savoir maintenant. maanaam maanaam bàyyi lépp. de tout laisser. ngir wéet ak sa bopp. parce que s'isole ak ñi nga bokkal euh, ay jëmuwaay et avec ceux avec qui tu veux cheminer sur le chemin ngir mën a jotaat sa xol pour pouvoir récupérer ton cœur ngir mën a jotaat sa bopp pour pouvoir se récupérer son âme ngir mën a defaraat sa diggante sa borom être libre pour pouvoir bien faire entre toi et euh, ndax kat li ëpp solo ci kaw suuf le plus important de cette vie mooy sa diggante ak sa borom ratax c'est la relation entre toi et Allah pour que ça devienne une bonne relation yàlla dañuy wax ne boo ko ñàkkee. Dieu si tu ñàkk nga lépp. soo ko amee nag. si tu l'as. ñàkkatoo dara ci kaw suuf. ak donte yoroo dara ci sa loxo. même si tu n'as rien entre les mains. Sëñ Tuubaa dara wax ne mbugal mi gën a tar. le cheikh il disait que le mooy. c'est suñu borom doxali barrage sa digg. sa digg d'avoir moo tax kon solo c'est pour cela que génn génn bii nu génn de cette sorte que nous faisons <coughs> métti na ci xëy na ci tukki ndax tukki rek xitaam c'est difficile parce que le voyage est déjà une épreuve rawatina nag sëñ xëy na sëñ Mouhamed ñoom min min nañ ko ak <laughs> sëñ bi waaye c'est une épreuve très difficile peut-être que Mouhamed et consort Cheikh ils ont l'habitude <laughs> on a l'habitude de faire ce genre de voyage waaye nag boobu nga xam ne solo c'est pas facile lu lu lu mën a xew doomu aadama daal léeg-léeg war nay am jamono yoo xam ne da koy jox yàlla. quel que soit alpha l'être humain doit prendre une partie de sa vie et ses moments qui donne totalement à jamono yooyu nag ci ngay mën a defaraat sa diggante sa borom. c'est en ce moment là que tu pourras te ressourcer. ci faire ta relation avec Allah. ci ngay mën a defaraat sa xol. ci c'est à ce moment là que tu pourras revivifier ton cœur. ci ngay mën a maanaam jàmmarloog sa bopp. et c'est là où tu dois faire face à ton nafs toi-même. ndax bakkanu doomu aadama. parce que le nafs en tant que tel xam naa ci beneen jaraay dinañ ci ñëw une autre fois on va revenir sur ça incha allah waaye bakkan doomu aadama mais le nafs en tant que tel day nax boppam parfois se trompe moo tax léeg-léeg war nga fa am nga jàmmarlu moom parfois il faudrait parfois faire face à lui waaw xoolaat sa bopp se revoir soi-même li nit ñi xamul ci yow ce que les gens ne savent pas de toi yow xam nga ko sa bopp tu le sais de toi hein. sikk yi nga xam ne moo ne ci yow itam les défauts que tu as qui sont en toi sikk yooyu itam yow yaa ko a xam. c'est des fois yaa ko toog sax. te yàlla moom suñu borom tabaaraka wa taala. allah subhanahu wa taala. Cheikh Ahmadou Bamba dalaa dem ci yàlla àgg ci yàlla mukk. tu ne peux jamais arriver vers Allah. illa bi xëy bi xëyri qat'il aqabaati ci loolu nga dog. si tu n'as de cette de cette hmm. nafs là. nafsu nag nga xamaat sa sa bopp. le nafs pour que tu maa nga am temps boo xam ni. faut prendre le temps. pour avec sa bop pour s'isoler avec son wéeteeg sa avec sa borom. pour s'isoler avec son Seigneur. ak nak ay andano yo xamné ko matalé et avec des gens qui sont sur la même voie que toi. waaw. wutee loolu kon mooy solo si dox bi. c'est ça l'importance de cette démarche. amna ñaari mbir yo xam ne mënta ñàkk. il y a deux choses qui sont indispensables. ngir mën a am yalla pour pouvoir avoir cette cette loolu ñaari mbir ñaari waruwaay mooy yi nga xam ne moo gën a gaaw ci dox bi. il y a deux choses les deux montures qu'il faudrait prendre qui sont les plus rapides. waaw ah, yooyu mooy almahabba. c'est l'amour. ak al ubudiyya. et l'adoration. ubudiyya mooy l'esclavage wala. l'esclavage ou on peut dire même accepter d'être esclave d'Allah. waaw l'acceptation de l'esclavage. ñaari yooyu nag buñ ko wax ay termes la ay musalax la yoo xam ne dafa am luñ lu ci ci si on dit ces deux termes.

Allah est meilleur que tout ndax mboolem di neex yàlla ko sàkk moo tout ce qui est bien et bon c'est Allah qui l'a créé maanaam mboolem di rafet ci sa bët it yàlla ko sàkk tout ce qui est joli devant tes yeux c'est Allah qui l'a créé moom mi sàkk taaru yi taaru celui qui celui qui a créé toutes ces beautés là et ces bontés kooku moo dàq loolu lépp il est il est meilleur que ça il est au-dessus moo tax waa àjjana yonente bi nee nañ nee na sallallahu alayhi wa sallam les gens du paradis buñ duggee biir àjjana si rentrent dans le paradis suñu borom da leen di laaj Allah leur demande une question ndax sant ngeen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

الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم ومن الذي يشفع عنده إلا يعلم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما ولا العزيز افتح لنا كل باب كنت مفتحا كم كل ما نرى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا نعم. إلا قضيتها يا أرحم الراحمين